Je arrêté le 0.4.6 slash Chebi autorisé lotissement de 117 hectares fi ci sebigar bi amé ñu def attribution nombre d'attribution, euh, attributaire bi 4940 parce que si ba légui nous xey ñoo fekk ñu clôturer site ñu wax nit ki ko sax amna alors que il faudrait souligner ici que parmi nous, amna ils ont introduit une demande de bail depuis 2004 2014 je veux dire je m'excuse sans succès ñun nak def nañu on pouvait faire on pouvait effectivement faire comme tout le monde c'est-à-dire euh, aller euh, euh, verser dans la violence brûler des pneus etc mais non on s'est comporté en véritable républicain. En quoi faisant Nous sommes allés voir le préfet, on lui a parlé. On a rencontré les deux maires, le maire sortant et le maire actuel. Mais jusque-là, rien n'a avancé, en tout cas. Raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire aujourd'hui de convoquer ce point de presse pour parler à ces autorités, parler à l'État, parler à tous les Sénégalais, qu'ils comprennent qu'il y a quelque part ici, non loin de Dakar, des centaines de familles à qui on est en train d'arracher de la façon la plus euh, injuste bien évidemment leur propriété xeex bi lim ñu jaral bëri na na trop parce que nak dañ ci yag fimné ni paré nañu pour utiliser lepp lu ñu yoon may pour que vraiment ñu delloo ñu suñu suñu alal parce que ñoo ko moom pare wuñu pour bàyyi ko loxo parce que ñi nekk fi sama ginaaw bëri na ci ño xamantene tay euh yalla dafa dogal c'est i borom keur sax nekatuñ fi d'ailleurs je vais faire une révélation man personnellement mës naa jot ki nga xamantene mom mo fay liggéey ci site bi bima ko joté mëna justement le frère même du promoteur est là bama joté frère bi li ma wax dafa leer daf mané bu la yeboo demal ba tribunal de la et ñun li ñu yor mo gëna a li ngeen yor parce que délibération ngeen yor alors que ñun ñu yoré yoree xawma etc. c'est et écœurant